maa ngi nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Anne jub jubal jubbanti rek wala ñu dugal la fii ñu nekk am rek ñoom xam nañ xam nañ miir bi façon façon tabax yi ñoom xam nañ ko quoi <laughs> jub jubal jubbanti rek wala ñu dugal la fii rek. voilà léegi sama vidéo bi El Malick Ndiaye ministre bi yor affaire affaire moom moo ko moom nga xam ne moom lañ jox ministère bi gën a jafe si Sénégal gaa jàmbaar la mu ngi def ay effort dafa am lu ko lu bëri ay loo xam ne maa ngi koy jot si taximaan yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo koy wax ko ak transporteurs yi sama mbokk yi ñu ne. Euh, état bu Sénégal dafa joxe ay taxi yu bari mais taxi yooyu noonu ñuy joxe di laaj 3 millions su ma juumul si information bu ñu ma jox pour ñu jox la pour ñu mën la jox taxi maanaam 3 millions yi moom ngay joxe comme comme garantie léegi man damay jox El Malick Ndiaye ne ko taximan bi nga xam ne ab chauffeur la fan lay jëlee trois millions am réew boo ko bëggee defar bul dooleel ñi am alal ba pare parce que réew mi problème bi mu am mooy ñi ndóol dañoo gën a ndóol ndóol ba yegg si dee léegi ñooñu nag pour nga yëgati leen. da ngay da di fexe def ay banque banque yoo xam ne taximaan bi ki yorul dara te doon ab taximaan nga xam ne yow da koo bëgg a génne si ndóol ngeen jox ko oto tegal ko ay condition muy verser banque bi comme ni muy verser transporteur mais bu ngeen jëlee euh, tey par exemple man transporteur la man am naa mën naa jël tey tey par exemple ma jël ma jël ñetti taxi 9 millions léegi man bu ma bu ma joxee bu ma joxee gouvernement bu Sénégal 9 millions pour mu jox ma 3 taxi ma jëlaat 3 taxi yooyu dem embauché si ñetti chauffeur léegi ma war a fay bu dee oto bi état bi daf ma ko joxe par exemple 9 millions léegi taximaan bi war a daw di ma verser journée 15000 wala journée 10000 léegi taximaan bi bëgg si taxi bi mu bëgg see daw maanaam lu mu si teg dépense pour këram parce que dama koy fay weer waaye da siy bëgg a tegaat day bëgg a daw 15000 yi mu may verser wala 10000 yi dafa day bëgg a daw 20000 pour mu mën a am 5000 bu mu def si boppam. léegi man taximaan bu ma versé parce que maa ngi war a fay état man damay daax taximaan boobu jëlaat beneen sëfoor encore loolu du solution bu leen dooleel transporteurs yi parce que dooleel transporteurs yi moom mooy ngeen sànq seen bopp dooleel leen sëfoor yi ñu fexe ngeen fexe ba sëfoor yëpp nga problème bi Sénégal am si côté transport bi problème mu sëfoor yi la ngeen di leen embauché maanaam ñu fexe ba état transporteur bi euh, fexe sëfoor bi am certificat de embauche ñu di ko embauché gisoo leen benn syndicaliste buy xeex pour sëfoor yi ñu di leen embauché léegi nag bu nekkee da ngeen a jël taxi yooyu jox ko ay transporteur transporteurs yi di ko joxaat sëfoor yi yéen transporteurs yi di dooleel chauffeur bi nga xamante ni man maa ko jox oto tey chauffeur bi yor sama oto tey di taxi man su ma ko dàqee bu subaa mu ñëw sama kër di ma ñaan lu mu fajee jabaram wala lu mu dépensé kooku fan lay jëlee 3 millions yu muy jox état pour ngeen mën ko jox ngeen mën ko génne si dóol bu mu nekk pour ngeen mën ko jox taxi man ta nekk léegi man transporteur bi man am naa doole am 9 millions 20 millions ñëw jël ay taxi jox ko chauffeur bi bu daf ma war a verser si wax rek la am embauché. kon El Malick message bi ma lay lancé daal mooy yow da nga ñëw pour defar état bi ñun suñu nguurum la président Diomaye président Ousmane Sonko bii dañoo ñëw pour soqali ñi ñuy wooyee néew ju doole yi am na sax ñu yegg si li ñuy wooyee doole yi defuñu ñuy nit respecté wuñ ñu Sénégal ku am alal taxaw sa kaw bopp bi léegi nag dimbale leen néew ju doole yi ñi amul alal ñi mënta dem tey jéem a dem mooy taximaan yeeg sa yi yeeg El Malick yaa mu message moo tax ñooñu laay tey mu ñëwee si ñi yor wàllu mbay mi dina am na ma siy communiqué kon taxi yooyu di leble bu leen ko lebal transporteurs yi leen ko chauffeurs yi teg leen ay banque chauffeurs yi si banques yi oto bi mag lu mën a nekk la chaque weer ñaari weer yu nekk ngeen contrôler chauffeur bi ndax oto bi ngeen koy jox mu ngi versé bu nekkee versé wul ngeen nangu oto bi lebalaat ko keneen mais bu dee transporteurs yi da ngeen a def noonu rek am licence indi am na ñoo xam ne am nañ licence mais mu mënuñu am oto condition yi ñu def am licence ñooñu dèjà rek mën nañoo dem parce que bul fekk ki nga xam ne mu ngi si mbarsal bi puus mu dem puusul mu dem nga di ko puus kooku soxlawul puus puusal ki nga xam ne amul oto bi mu yor amul batterie amul courant amul dara nga dem defara ko ko fexe moom mu dem El Malick message boobu laa lay jox mooy bi gën bu ngeen ko defee moog li fi jaaroon a yem rek Abdoulaye Wade indi woon na fi ay oto Macky Sall indi woon na fi ay oto ku nekk jox ko la neex yaa ma neex mu juul fen su ko defee chauffeur yi nag ngeen teg leen ay sanction yoo xamante ni bu ëllëgee ñoom duñ amoo lay loolu mooy li syndicalistes yi tappalekat yi yëpp boo xoolee ñoom ñoom ay transporteur lañ ñoom ñoo moom oto yi ci dëkk bi li ngeen di leb de tamit ñoom ñoo koy jëlaate bu ëllëgee ñooy demaat ci télé plateau yi di wax rek nag salaamaaleykum wa rahmatulah El Malick jàppal ci li ma la wax te nga bàyyi si xel